et de Landing Camara. je jëf jërëjëf Imam Dramé sëñ Cheikh Thioro ñu ngi lay nuyu bu baax a baax.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 général nekkoon semga jamono jooju général Jean Alfred Diallo ginnaaw ndaje boobu mu amoon ak président Léopold Sédar sengor bind ab bataaxal président Léopold Sédar Senghor le 2 juin 1968 bataaxal boobu général Jean Alfred Diallo di xelal président Léopold Sédar Senghor lan la war a def